moytu tànk yi nga xam ne daf leen di yëbbu ci guuta son excellence may gi ko yàlla may muy borom xam-xam nekk président boo xam ne gannaaw biñ amee ci moom yaakaar tabb ko yaakaar googu daf ko gën a dëggal ci population muy jàmm mu oote yi nga xam ne tey mooy dialogue euh, kër yi diine yi fépp oote démb ba léegi ñu nekk ci alhamdulilah rabbil alamin ñu déggoo ci macha allah ci la deux ans ne incha allah ñu jéem a def li nga xam ne moom mooy élection yi loolu nag mbooleem opposition bi nga xam ne ñu ngi fi ñoom ñëpp ànd nañ ci ñëpp ànd nañ ci loolu ñuy ñaan nag ñi nekk ci biti ñu xam na réew fee mu ngi am jàmm yow mi ñi amul jàmm ñooy xam ne yow yaa am jàmm waaye yow mi am jàmm mënoo xam jàmm ji nga am ñu indi compréhension boo xam ne ndax président li wax dem ñëpp dégg na ne moom doyal na dafay dem waaye nag du bàyyi réew mi pour muy dugg ci guuto foofu nag réew mi di Sénégal dafa nekk réew moo xam ne foofu ñu taxaw taxawaay boo xam ne bala muy dem bàyyi ko ci loxo yoo xam ne ay loxo yu wóor la ndax duwul réew mi ku nekk ko mën a jiite ay problème yi fi amoon noonu yëpp waxtaan nañ ba déggoon nañ ci ne incha allah le 2 juin loolu nag limay may sàkku mooy population bi bàyyi seen xel ta xamna yàlla wax na len wallahu yadu ila daari salaami wa yahdi man yasha ila siraatil mustaqim loolu na nga xamna yàlla wax nako ko sallallahu alaihi wasallam wax ko yàlla yónni ko mu indi ci xeet wi Sénégal gi nak nek dëkk bo xamne ci keparu yonent bi lay dund sallallahu alaihi wasallam fa Sénégal yahwi taxta zilli Muhammadin nekk ci réew moo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahima wax na ne bi sirri mu xafa laa yuxidu binaahi muy bàyyi si mu ne réew la moo xam ne dañ koo dëxëñ ak mbootam alquran te li ko tabax dara mënu koo yàq kon képp ku taxaw na ngir bëgg a indi problème ci réew moomu jàpp ne la ngay créer ci ay musiba amaana ci yow ci kaw lay lay lay waaye nag kilifa yëpp ànd nañ ci ne dat joxe nañ dat biñ ko war a defee ne ñëpp ànd ak daal bañ àgg foofa incha allah.